بورني دفال نبال بوكينو دي كاد اغيين تي حديث بس بي مودي حديث اليومي كم نينو كبا خودي اند اغيين بس بجوت سين بوك شيخ باي سك ديكو اند اغيين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن سطر مسلما سطره الله يوم القيامة متفق عليه ابن عمر عبد الله يلنا يلا dool غرم gërëm نيار ابن عمر نينا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al muslimu jullit axul muslim mooy mbokkum jullit laa yadlimuhu du ko tooñ wala yuslimu du ko jébbale itam du ko jébbal ay noonam man kaana ku nekk fi xaajati aqihi ci aajoy mbokkam kaana allahu fii xaajat yi yàlla nekk ci ay aajoom wa man farraja ku wuññi an muslimin walis ab kurbatan aw tiis njàqare farraja allahu anhu yàlla wuññil ko biha ci wuññi googee nga xam ne wuññil na ko mbokkum julitam njàqare kurbatan njàqare min kurabi yawmil qiyaama ci njàqare yowmal xiyaam wa man satara musliman ko xamne itam itam nga sutural ab julit satarahu Allah yalla sutural ko yowmal xiyaama julit julit moy mbokam wuro ko togn ci lepp nak ci deram ak alalam lepp lo xamne xeru xeetu tooñaange la waaye tam na fexe ba di ko musal ci ay noonam bum ko bàyyee mukk ak ay noonam jamono boo xamee ne tooñees na ko na ko défendre fexe ba mucc waaye bum ko jébbal ay noonam jullit bu ne xam ne jamono boo xamee ne yaa ngi nekk ci góorgóorlu fexe faj aajo yi sa mbokkum jullit da xam ne yàlla dana faj say aajo jullit boo xam ne itam yaa ngay taxaw ngir tiis njàqare nga xam ne mu sa mbokkum jullit nga fexe ba teggi ko fexe ba taxaw ci ba loolee lépp di tiis jóge ci moom loole itam yàlla dina taxaw teggi la say njàqare ëllëg yowmal xiyaam nga xam ne yowmal xiyaam njàqare fay am yàlla dina la ci musal naka itam ci sutural sa mbokkum jullit boo ko defee yàlla suturaal la ëllëg yowmal xiyaam suturaal mbokkum jullit nag mooy sa mbokkum jullit ma nga xam ne def na mooy rëcc rëcc rek ko ci yóbbe am na ay bi yoo xam ne itam rëcc rëcc rek la waaye bu dee ka nga xam ne daa nuur rek ci ay moy nga xam ne boo suturaalee sax faf day gën a beew gën a nekk ca mooy googee kookee mooyam googee du lu ñuy suturaal parce que ngir wan ko ba waaye mbokkum jullit mi nga xam ne xëy na la muy def du ak tey ay rëcc rëcc la waa jéem koo suturaal fexe bam deñ kon daal jullit nii lay taxawee mbokkum jullitam fépp foo xam ne jaaxal na fexe ba taxaw ca jaaxaleem googu bam deñ waaye itam lépp loo xam ne lu koy musal la ci ay noonam nga taxaw ca ba loolee am waaye itam bañ koo tooñ ci benn côté yàlla nañ yàlla defal tawfiq defal ndimbal إن أريد للإصلاح ما استطعت توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته